bu baax a baax di nuyu Sénégal yëpp euh, di jaale Sénégal yëpp ak euh, surtout waa famille Faramareen suñu papa Thione Balla Seck euh, Thione Balla ko Seck mi nga xamante ni moo dëddu démb ñu koy jaale di ko jaal yëpp yëpp yëpp jërëjëf mastawu daal. Mhm. Chifa bi fan la tuddee lan sa tur. xarit moo ko tuddee bu ñuy wax Fallou Mboup moom ko jox comme surnom d'artiste de vraiment ngi tudd Saliou mhm. mais xam nga Saliou gis na gis boo xamante ni ci aar bi mënoo neex ñëpp mënoo plaire ñëpp. Eh, te nit mën na ko wax jaar foo xamante ni amaana yow doo ci loolu mais moom mën na ci loolu moo tax sama xarit bi ne ma pourquoi pas Chifa ndax yow laa bëgg nga nekk le guérisseur des cœurs parce que Chifa ça veut juste dire que le le guérisseur maanaam à travers mes sons dañuy bëgg tey nit bu ko dégloo bu amee stress mu jeex bu amee naqaram mu deñ tu vois day faj daal. D'accord. Chifa. Donc, les Guinéens, l'Australie, pourquoi l'Australie Comment l'Australie déjà L'Australie, ça veut juste dire je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai parce que ça parle d'amour muy muy benn way boo xam ne maa ngi ko tënk ci mbëggeel et pour ma mbëggeel euh, tay la ëllëg ak voilà allez lu dul jeex quoi mm-hmm. voilà moo tax ma tuddee ko L'Obstrué je t'aime et je t'aimais et je t'aimerai ok mm-hmm. euh, nan nga def ba bind son bi depuis fan nga ko waaw dama ko dund dafa nekk loo xamante ni bon gis naa ko ci doomu aadama yi ñu koy dund ak seen ah bien sûr parce que je suis marié. Ah, <laughs> xam nga <laughs> maa ngi madame maa ñëpp. xam nga maa ngi ko dund ak moom lenn li ma dund ko ak moom lenn li ma gis ko ci mbedd bi xam nga voilà ni ko ñëpp dundee quoi parce que mbëggeel doon na lu universel loo xam ne nii mën naa ne ñëpp koy dund. voilà ma inspiré daal bind ko mu neex Sénégalais yi. donc euh, ñu gis ne sa son mi ngi daw euh, ci série Madior ak Dior. nan la nan nan link bi nu mu ñëwee. waaw link bi dama bëggoon rek son bi jàll. parce que boobu xamoon naa li ma liggéey xam naa fi mu toll te xam naa ne que voilà it la quoi ma waxtaan sama benn xarit bu ñuy wax Bamba Camara ma ko nuyu de passage muy ku baax moom mi ngi nekk Pikine moom laa envoyé son bi ne ko dama bëgg nga déglu ko te bëgg naa aussi mu jàll seen page YouTube bi xam nga par la suite mu ne ma ah, suñu boos bi kat nee na bu son bi naayosul moom du jàll far yàlla boos bi déglu ko nag moom bëgg son bi. ne nañ ñëw ñu def ak moom contrat voilà sox bi mën di jàll ci Madior Dior parce que ça parle d'amour et que Madior Dior bon parti ci ëpp bon ça parle d'amour quoi noonu la sox bi def ba jàll ci Madior Dior. te mën naa ne moo gën a tax ba Sénégal yi xam ko quoi. Tamba Alioune moom dafa gëm jeunes yi te da ciy jàpp tout effectivement ku baax. Mm-hmm. Euh, donc yan ouverture la la la la la. waaw may na ma lu bari ah. tax na ma ma lii parce que li li Wally Seck den wax benn jour naan musique da lay tukki loo sans sans passeport ah. yóbbu sa tur nga war war bi te doo jógee fi nga toog loolu mën naa ni ibbil na ma bunt yu baree bari bari wax dëgg yàlla am na liggéeyu ma ak benn label fi mu nekk mais label yu baree bari bari contacté nañu ma te son bi moo tax ñu contacté ma wax dëgg yàlla ñu ngi ci close yi te déggoo bu ñu daal mais wax dëgg yàlla voyageur la na ma may na ma yeneen connaissance et puis voilà daal maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. ok kon euh, ba léegi autoproduction ngay def. waaw maa ngi maa ngi tudd bopp. est-ce que yow mën na yan difficulté ngay rencontré. bon c'est pas facile ah maa ngi ko ànd ak xam nga rek sama nit mais bon ñu ngi ciy ñu ngi ciy sant yàlla quoi parce que tamit on est voilà kenn tënkuñu ci dara quoi on est indépendant ci ñuy def voilà. ok donc euh, nga génne aussi à Rasulullah. waaw boobu maa ngi ci defoon euh, cover euh, suñu papa bi suñu waaye bi woyoon amitié moom laa woyoon moom laa moom laa defoon cover waaye ci yonent bi salaay salaam. waaw waaye bi neex ma trop. vraiment pourquoi nga jël choix boobu. waaw parce que dama toogoon di ci waayam parce que moom li may déglu waayam mooy moom papa bi suñu dafa ëpp moom damay déglu ay waayam lu bare bare bare ba damay inspiré. xam nga ay waayam daf may éduqué ay waayam day def ci man yeneen harmonie yoo xam ne néewutul ci man voilà ci laay inspiré way booba rek bind ko ci ne pourquoi pas lii du ko def koo way ci yonent bi ma def ko mu neex nit ñi ko vraiment. ok donc ngay nekk di préparer album international. fekk ko mën a xaar. bon incha allah ci ci biir ci biir année bi lañ koy lañ koy xaar parce que Covid bi moo tax sax parce que lu lu bare bare amoon nañu ko ci ay tournées xam nga ci def mais Covid bi ñëw téye mais incha allah ci at bi bi nekk incha allah album bi dina génn. album bi ban la nar a am yan tam nga ciy développé pour. bon lu ci ëpp euh, ça parle ça parle d'amour ah ça parle d'amour parce que am na ci yu mbëggeel yu bari am ku ci mel ni l'amour du moom xam nga fi nga ma def yooyu am na ci album bi aussi am na ci loo xamante ne maa ngi ci rendre hommage mag yi nga xamante ne am na leen suñu biir dëkk ku ci mel ni maam Borom Touba xam nga Cheikh al Islam maam Maodo Malick maam Limamou Laye ñoo leen ci rendre hommage am soo boo xam ne ci rendre hommage suñu jigéen dëkk. rawatina jigéenu waalo xam nga parce que ku ne dégg na histoire waalo ku ne dégg na tamit jigéen jàmbaarte gi mu am ci yoonu l'islam am ko ci dëkk am am ko ci am ko Sénégal xam nga ku ci mel ni maam Diarra Bousso maam Fadou Wele ñun ñëpp ñu leen ci rendre hommage incha allah. Mhm. ci album boobu. donc euh, l'amour du paysan pourquoi l'amour du paysan lan la inspiré. yee paysan benn son la bu ma neex parce que dama doon voyager benn jour mhm. romb baykat yi ci àll bi xam nga ñu nekk ak seen i seen i soxna nekk ak seen i doom bon ma gis nit ñi ñu ngi dund bëggeel te nit ñi bàyyiwuñu or que ñoom tamit ci dëkk yi lañ bokk xam nga ma gis ne ñi tam ñu ngi dund mbëggeel boo xamante ni man war naa ci mën a bind te waaye bu génnee bu ngeen ko dégloo di nga xam ne lii moom euh, voilà la mu se c'est vraiment l'amour du paysan quoi parce que voilà ci ci ci ci seen dëkkuwaay xam nga ci niy dundee ci ni ci seen i melokaan noonu laa noonu laa noonu laa tënkee way bi quoi waaw jéggaaniwu ma leneen fanaan ci biir paysan laa ko <laughs> ci laa ko yemale quoi

mais man yaakaar naa ni benn jeune du jël alalam xam ni lii kat tey ëllëg man maa koy moom mu di ko yàq mais voilà bu ñu fippoo rek c'est parce que sonn nañu quoi donc li may ñaan rek mooy ñi nga xam ñoom ñoo ngi jiite nekk suñuy kilifa ñoom la ñu gën a yërëm population bi gën leen a wekk xam ñooy kan daal bu ko defee rek Sénégal li fi xaj mooy jàmm te incha allah yàlla dina ko fi def. mais lan mooy sa style man world music laay def waaw world music laay def foo mu yóbbu rek ma dem. Mm. mais nag bon mbalax laa gën kii mais foo mu ma. mbalax rek nga commencé non def naa ay style yoo xamante ni parce que son yi may def à part soirée yi may joué son yi ma def yëpp mën naa ne benn benn lu ci mbalax euh, benn lu ci mbalax. Hmm. yooyu si afrobeat laa def moom laa def love trip bi xam nga euh, jël unité bi euh, reprendre ci woyu Pape Youssou Ndour bi defoon naa beneen boo xamante ni bisu safar la maa ci woyoon Serigne Touba Khadim Rasoul reprendre woon perfect bu Ed Sheeran boobu musique bu loolu laa ko defoon rek xam nga. voilà donc nan nga compter def euh, promotion bi. promotion. Euh, sa son yu génn. waaw mais topp ko ah topp ko rek xam nga top télévision yi top site internet yi xam nga suñu page YouTube bi Instagram TikTok ñu ngi fépp daal ah bawuñu bawuñu bawuñu lépp lépp loo xamante ni rek mën nañu may tey visibilité rek ñu ngi ci quoi. est-ce que yow mën na def fi musique Sénégal. non c'est pas du tout facile. yombul ah yombul parce que ça demande des moyens mais nag ñu ngi sant yàlla parce que man gëm naa ne temps rek mooy fay quoi da parce que nit ñi xam nañ lu baax te voilà quoi xam nañ xam nañ xam nañ la bonne qualité donc boo amee temps rek avec l'aide de Dieu incha allah dañ ci dañ ci génn quoi te loolu lañ gëm. Euh, qu'est-ce que tu fais en dehors de la musique wala yow musique. je fais que de la musique mm. ouais. donc kon la musique nous son homme yaa ngi si. maa ngi ciy sant yàlla waaye maa ngi sant yàlla bu baax macha allah. d'accord <laughs> c'est pas facile mais ñu ngi sant yàlla macha allah. d'accord donc nan nga gisee musique bi euh, jamono ji. bon mais mën naa ne dem na demu naa je dis que dem parce que parce que man li gisuma sunu lu international di ko consommer je me dis que demagul quoi. voilà du xëccoo du du ngaayoo bi non non man amul sens quoi mais le fait que ñu mën a pays africain yi ni musique ñu leen au niveau international man foofu xamee que ni bu ñu sunu musique nationale voilà ba consommer wala tey bu extérieur benn chifa dem extérieur xam nga li ngay gis sax ci ay nit ñuul mën naa du bari ay nit weex la ngay gis voilà man je me dis que voilà ñi jàng ñi xam bon suñu valeur lan la quoi. waaw pour yow lan moo ko retardé. waaw mais moo bari rek ci musique bi ah pour man job amul quoi pour man job amul parce que da ngay génne benn album léegi tey mu def benn une semaine après kenn dootu ko déggati ci ah, pour man des na qualité quoi parce que bu amee qualité rek dafay des quoi xoolal suñu papa yi ba tey li ñu waroon démb. boo ko dégloo tey da nga naan démb la génn texte yi ñooy riche tamit. waaw bah, parce que loolu mooy loolu mooy job musique bi c' pas c'est pas que nga woo on a de bons musiciens au Sénégal c'est pas que nga woo de bons musiciens rek ñu joué non non mais tey taxi yi daf ci am solo li ngay wax xam nga nga mën ko jaay nit ki déglu ko xam ne kat njariñ la quoi et ça reste mais bu fekkee da nga ko bëgg a def loo xam day day day voilà loolu loolu loolu mooy continuer da nga indi lu fooyee tey gars yi déglu ko deux jours fooyee ko trois jours kenn ñu war lu fooyee ko. te loolu du am du du du toog quoi. Hmm? parce que su suñu way suñu waykat yi mag yi dina wax naan way bu diglewul yeetewul rek ay naxe la ah, ah donc bu ñu naxante na gars yi teg texte yi way ko ci voilà ci harmonie yu neex ci bi yu neex nit ñi jariñoo ko et boobaa dafi des. suñu projet mooy album bi ñu nekk ah album bi ñu nekk rek international bi mu war a ànd ak euh, son bu nekk incha allah war a ànd ak euh, vidéo bu mu war a bu war a génnaale incha allah mais di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Sénégal yi rek di bëggee sama staff xam na sama famille sama papa sama soxna maa ngi siyaare ñëpp ñëpp euh, di bëggee ñëpp daal di wax ñëpp la may ci l'amour du paysan parce que saa moom nga laajte. ew ceeb ji mu ma daal di cay xewlu ba jàpp leer yootu i leer fas yéene dem tool sa mbëggeel sa yërmande ji ma leer waxtu yoor yoor ca ngay teew fàggul ma naan ak laaxu ngurbaan e soxna si moo di kéemaan yaa si noobu bu alim sutuwee jikkoy soxna si tax ma jiñ leen roy nga ci maam buuso jaariyatulaay ma fàddu weele waat na billaay na ñaali bañewoon ñetu laa lekk sara fatma xurëja dameel bibi salaawu walaay man lànk naa duma la weccoog doomi dameel